ki nga xam ne mooy ajaratu mat leen chef de gang bi kooba bu mag bi <laughs> ci boppam mi woote këram ñu xool nag mbir mi am na actuellement mu ngi ci loxo commissariat bu caaro yi ñetti meer yaa ngi fa kori tabaski bi te police caaro yi la leen fekk ko ñoom Fatima <laughs> léegi ñu seeti me waaw man de allo waaw ajaratu bii su foo toll yow tamit kii faama cuun foo leen toll waa yéen egg si leen toog maa ngi woo sax te yaa ngi dugg si aja aja aja tabaski bi dëgër na ba pare ah, xam nga nu ñuy def mhm. jox suñuy yàmbaa ba réer mën a lekk ci yàpp hmm. mën a jéngu nag wax yi parce que xale yaa ngi jooy yëre ak dàll nañ ko doon defee rek yàmbaa bee manqué dëkk bi kay yow dina bu mag bi nekk ci koñ bi par Cheikh Diallo mi nga xam ne ah. xale bi boo ko wooyee ne ko jaay ma yàmbaa mu ne déedéet maire temps yi du ma jaay détail ah, waaw yow jëlee yàmbaa ah. Pape Cheikh ja Pape Cheikh yàmbaam sax nag sax daa daa daa daa bëri suuf yàmbaam daa bëri moo tax nakaraj dafa boppam de faama bokk bokkul. faama waaw jot moo amul génneel yamba bi ñu taal. <laughs> man ma yow it ah yaakaar dama koy bàyyee noonu. <laughs> risque la di. Mm, Habib Habib Habib Habib mel di la sa di la moom a jaay moom neex la wul moom Pape Cheikh yambaam dafa kare. yambaam bokkuma ci dara. Habib dee ma jaay yow ay soins ay buuga la ay buuga baraajoo la. kon kon yow jaratu ñuy raam waaw natt bi ajaa Adja Adja Rokhaya ay dara de wax. dinañ ci dugg tekkatu diir la. mooy yow <laughs> man nag kon bu mu dem or dafa natt teggi daw tuxu beneen kon. waaw waaw waaw boo ko xoolee xam ne kooba la. moo. waaw waaw waaw est-ce que taal yàgg naa yëg bilam. est-ce que taal xaj na fi. man de barki démb bi ma ko taalee yow. waaw sama dënn bi daa meloon ne terrain la. déedéet déedéet aja aja aja Amadou xoo xool tamit nag xale yi te te taxaw amee. mais ma yëndu loolu loolu gën a wóor waaw. Ah. Eh, ajaratu alfe ngi nii di dem maa ngi koy seen xool ajaratu alfe xool ko xool ko xool ko dafa sob nag bët bët bët taal leen bopp kese de eh li yëpp mënu ko taal loolu nañ ko nañ ko suuroo nañ ko suuroo wax nga dëgg mooy yow dama xaw a si dama xaw a siik waaw yow kan nga mujjee jox barki démb ñaay ci jàngu aja ak kii jox nga man dama xaw a siik sax dañ ko suuroo dañ ko xëcc dañ ko suuroo dañ ko suuroo rek dañ ko suuroo bañ ko xëcc dañ ko dañ ko suuroo xaar ba mu jàpp waaye ba mu jàpp xaar ba mu jàpp xëcc gi rek mënut a ñàkk ndax dama soxla sama ndong li yambaay essayé lompaacé la yow it doo ko def nii doo sama ndong li de laa soxla yow tamit yaa ngi koy yàq ma ngay dem sa dënn bi jàppal dënn bi jàppal dënn bi aju nga aju nga oui yow dañuy wax xamata aj nga aji nga <laughs> yaa ngi sànni dañ ko suuroo la la la oh, yow suuroo bee dàq yow ah, yaa faama bàyyi mukk bi te suuroo. Ah, waaye nañ ko nañ ko suuroo nañ ko suuroo. xër ma ko xër ma ko xër ma ko. Ah. Ah, waaw yow eh mais bés di rek bu fi ah mais bés di rek. ah dama ci TFM. <laughs> moom dama koy def moom. waaw waaw découverte bi si eh, taalal taalal. nan ko nan nan nan nan ko sosante. bay adina adina adina adina te buuxante wu ma adina. waaye rege ma rege ma. dama ne faama cuun rege ma. waaw waay dama ne. learn of yourself. waay waay. learn of yourself. waay waay. bi fi ñëw démb di wax ci ñu mbënd nii nañ ko teg démb mu ne tëll ci koñ bi ne seen koñ bi dafa ànd ak mbënd nañu jooy xataraayu mu jox ñu xaalis ñu pose jeunes yi jëndee ko yamba yamba bi dox na amul taxe dama ne dafa dox yamba bi amul taxe da ngay dugal am 100 pour cent yow loo yëg yow Adja Bijou man nag nit ñi bu ma ko tuxee man hmm. sama yaram bi yëpp ànd noo ko mel ne mel ne ay ay ay ay transfert da donné yow wala hmm. mel ne damaa dugg ci passe web bi hmm. daal di génn ci kaw ci ci ci barre de tâche rek cliquer rek dugg ci internet bi yow xoolal wifi ah, bi gaaw ba dee xoolal au début maa ngi au début ma daa faama maa ngi au début ay sama connexion yeexul cuuraay bi cuuraay bi sarxatan cuuraay libaane lañ fa taal ñun cuuraay libaane la doon libaane lañ fa taal élément yi ñu ngi si biir taxaw yéen a décidé da ngeen ñëw ñu dox naan dem gendarmerie wala ah dañu laaye ko ciiroo léegi nag Macky Sall lan la ñu xam moom ciiroo loolu loolu doom li ciiraay la de. xale bu góor bi sarxatal xale bu góor bi sarxat. ñu ngi yàq xamu ay ma ne sarxatal la ciiraay Iran bi la. ok boo leen dem dem dem deux mois. xarmoo gars yi ñu def benn benn benn. càmmeñ sama càmmeñ kaay ma gis ak yow sama càmmeñ sama càmmeñ yow ay sax da faama tuul yëpp yow la boo goos yow faama tuul boo goos ajaratu biisu bu ko sar na sar na ko biisu biisu sar na ko xanaa xamoo man la ajaratu biisu njaay yow xanaa xam ne woo ma yow man la ajaratu biisu njaay bu bu kii bu yeewulee